am na combat yoo xamante ne jot na mel ni Boy Niang ak euh, ku ci mel ni Boy Niang ak Tapha Tine noo gisee boobu ko waaw combat bu neex nag combat neex euh, bu Tapha Tine jëlee motuwaayam ci combat boobu combat doon combat bu rëy bu neex a neex a neex a neex waaw soo dégg ma la bu jëlee motuwaayam mooy mu préparé ni mu ko war a préparé ni ko nit ñi di foogee sax mun na bañ a noon noonu dinañ tege ni Tapha Tine du bëre parce que Boy Niang lu mu xeex xeex bëri ba ëpp kon dinañ bëre Tapha Tine bu programme lam li ko doon ci Yékini Junior mun na ne Tapha Tine bu neex yow est-ce que nekkul da ndax Tapha Tine génn mais dafa waaju poids bi nee leen mbapat laa bëgg seetaanaguma ko waaye ma gis rek comme que mbër laa comme ñoom nee naa école lañ bokk ñoo école de classe yëkk wutee ñëpp xamante nañ ku nekk li nga mun xam sa morom xam na ko boo ñaa lan moo ko arrangé ci combat boobu boo ñaa li ko arrangé mooy na am force am <laughs> rapidité waaw loolu ak coffre bu doy xeex bi loo ko xeex bi muy bëri loolu xeex bi xeex bi bu amee ci kor mun na am problème quoi soxlawul loolu na am waaw physique bu doy waar. waaw Tapha Tine na na na entraînement contact bu doy mooy parce que muy bëreel su bëggee xeex day xeex su bëggul xeex day du xeex. day xeex su bëggut a xeex moom Boy Niang su bëggee xeex day xeex su bëggut a xeex du xeex yàlla may na ko lool ni mu bëgg ni mu noonu la koy déroulé. nee noonu te Tapha Tine lépp ci ay combat am dóor la ñuy gis waaye ku mënoon bëri la si poi jamono bi mu doonee lese doon lese noonu quoi waaye bu mu gënee moom ba kon xam na li koy xaar parce que bu dee ba nar a wàññi poids am kon xam na moom li mu war a indi ci laamu jooju laamu ju neex la laamu ju nul laam te buñ parce que kii dégg naa ko ñor taabi kii naa ko waaw xam nga kan dama dem ci bawal booy ñaama saakaande saakaande xam nga luy lool loolu argument la moo lay na dund lamb war na neex ci at bii ñu jëm 2021 bi dafa doon war a doon ubbeeku làmb amul combat boo fi lim te ubbiwul làmb yëpp nag boo fi lim lii day ubbi làmb waaw